El Hadji Ahmed Aïdara bismillah ca élection présidentielle dee cay parrainage da kay la nuy wax le soleil yéene kaay ne dogal bi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall daal dina koy jël day waaw ngir daal di parrainé ne kon wàllum candidature yooyee ci élection présidentielle ya waaw nga xam ne nag maanaam ngir nga bokk ci il faut téeméer boo jël nga am benn ba di un pour cent si nga xam ne kon nañoo bind nag maanaam ci fichier électoral bi lée daal dinay jur débat ci biir réew de coow lu rëy même bu dee sax am na Ismaël Madior Fall waaw nee gis nga wàllu parrainage googee ah du fi lu bees waaw waaw ministre bi nee na du fi lu bees ndax loolee kon daal dinañ koy dugal ci réew mi nag 1991 ba léegi ni lée yaa jum wala maa jum Ismaël Madior Fall ah, ngi toll ci ñaari millions ak genn wàllu yu tëgas lëf deux millions cinq cent quarante neuf mille six cent quatre vingt dix neuf électeurs te boobee tamit juróom-ñetti région dong moo fi amoon de huit régions tey ji lée fichier ci laa la wax six millions cinq cent te dana bi juróom-ñaari ngi leen jëm laa la wax te xoolal ma région yi day léegi nag daal dinañu yokk quatorze région la Sénégal am Ibrahima Mbodj journaliste ci la Soleil yéene kaay ne ko waaye mbaa xalaatoone nag bis bi nga xam dañuy voté ko loi boobu 23 juin daal di judduwaat maar day taali ministre de la justice ne ko déet yee 23 juin balee bisu rongoñ la woon de naqar ak diis nit ñay jooy waaye révision bi waaye waaye xam nga ne dalal xel la bànneex dëgg la ci askan wi askan wi ne duñu génn mukk ci mbedd mi li day di naqaru nag maanaam démocratie boo xam dañu koy jëmale kanam yenuwul maanaam vox populi ne Aly Ngouille Ndiaye day waaw wallaay dina opposition bi ay duma dooru député bi sax maanaam ñi a décaler a eh, waa PUR bu Serigne Moustapha Sy waaw soo leen gisee nag maanaam ñu gedd kon waxtaan wi nga xam ne kon doon nañ ko waxtaan day ci wàllum processus électoral ba la ko waral day mooy wàllum parrainage boobee waaye professeur Issa Sall mu àndal tey la ñu gën a taxaw day déterminé wu ngir xeex wàllum parrainage koo gae di proposition bi te professeur Issa Sall xam nga fan la sukkandikoo ci expérience da koo dund 2000 waaw ba ko fi conseil constitutionnel tànnee ngir mu bokk xam ne nag maanaam kon nañu koy càmbaral di vérifier wàllum parrainage goo gae ci yenn ci ay candidat possible vérification électeurs yi mënul ne waaye Moustapha Sy ji day njiital Moustarchidine wal Moustarchidaty waaw yemu ca parce que professeur Issa Sall nee na boo sàgganee nag wàllum parrainage ko kay danañu dugal réew ci guta laa la wax maarti taali waaw waaw réew mi dana safara dana fi tàkk te dara dana bari lool candidat laa ilaha illallah professeur Issa Sall ne waaw parce que yéen ñëpp yéen a fàttaliku candidature yu sunduur Kéba Kende Abdourahmane moo ni ñooñee dee góorgóorlu woon nañ ba amoon nañ fukki junni ak ñaar ci ay signature laa la wax waaye fan la ñu juróom-ñetti junni te loolee nag moo nar amaat laa la wax vox populi ne Aly Ngouille Ndiaye day waaw wallaay dina opposition bi ay duma doolu mi tamit sax maanaam ñi nga xam ne nag dañ ne électorale mi waaw ma ne la góorgóorlu yi demuñu de gars yi demuñu de yéene kaay gi ne ki dem kay mooy Ibrahima Dem Hamidou tekki a tànkam ci wàllu magistrature googee waaw waaye tamit indépendance susi suskre moom nañ seen bopp waa wala déet waa ba day am nañ lu leen tamit de lool Babacar Ba bu forom di justiciable waaw nee na tekki ndomba tànk bi nga xam ni kon Ibrahima Dem mi la tekki na ko ndomba tànkam day cax la de cax la te wax la c'est un signal fort cax la ci njiitu réew mi le ak magistrat yi Sadikh Niass bu rado waaw nee na ñu day dañoo mës di kaas ko naqarlu maanaam waa palais bee matin exécutif bi nga xam ne dañu ne saax ci biir attekat di pouvoir judiciaire ba attekat gis nga attekat yoo yee enquête yéene kaay ne seen diggante waa palais ba day di exécutif ba waaw xanaa xamoo leen ne mitit gi mitit gi gën naa xóot lool li ñu ko yaakaar maar day taali la ko wax de bi ngir wàllam justice si kon moom boppam di wàllam indépendance day tàmbaliwul tey de ak Ibrahima Amidou Dem déedéet yéen a ngi fàttaliku kay diggante wu dar yi la yëkkati sànce wu Thiès yaa Teliko mi jité nak EMS di kuréelu magistrat yi waaw nee na ci yeneen magistrat yo xamni day la leen gënal waaw moy tok ci biir di ko fa xex ba mu saf loloy dëgg kay xex ba mu saf moy Abdoul Mbaye laaste Abdoul Mbaye day waaw yek na lu melni ni xamee Macky Sall ak Massata Diack Abdoul Mbaye ne bilaw Macky Sall bi day dama ne baxul la la wax mako wax xolal ma ci wol pétrole bi Sénégal mësta am kon musiba mbaa ba ko ma di scandale wu ni toll laa la wax te rak janak lañu ko dénk nee ma Aliou Sall ma la ko wax Macky Sall ak ay wax waxé judul jeex lu mu wax du def wàllum traque ni lée alal julewul ji kumba am ndey kumba amul ndey xool ñi ñuy ate ñu dul ate Abdoul Mbaye ne Khalifa Sall moom ñi toog di xaar de mais yaakaar bëriwu ci de ma la dañ koo bëgg a éliminer ci élection présidentielle Abdoul Mbaye yamu ca ndaxte ma satta jàk nag li koy wax mooy mu dem ca France ke jàppale ji bàyyam nu mu lijjantikoo ba bàyyi moom boppam ñibbisi ma sata na ca ne lañ war a nekk day vox populi nee na mooy le quotidien yéene kaay nee na génnee leen ci mbedd mi day gone di yelawaan ak taxawaalu waaw opération boobee tey lay tàmbaliwaat yéene kaay ma jambal jàngi ne compagnie sucrière sénégalaise waaw boo sàgganee day ci tëj la jëm de maar tey waaw waaw ndax fraude bi ak ñiy tappale contrebande yi que lu tolloo fukki junni ak ñaar ci ay tonnes yoo xam ne tappale la fraude la ñu ci marché bi juróom ñetti fukki junni ci ay tonnes dem naa ca football ba box sobli eh, bu <laughs> Eh, alaaji dañ koo bañ bañ coupe du monde bokkul ak amical cabral de caaxaan génneewu la premier tour caaxaan jëlloowu la coupe ba xayaar na ku dégg séeréer boo paree mën ne leen